Ucab FM. li a fës ci yéene kaay yi. bis. simig wane seen bopp gu mat la yéenekaay yu bëri bëri xëy dinu ko fesal dinu xamal ne ku jëkk politique yi niki démb amal nañ mitin bu mag mag foofe ca Ndakaaru sunu naataangoo ko cay nettalee mbooloo mu bëri bëri ku ci la nga ne kon yaa ngi ko cay xëy di la niki démb ca Ndakaaru sunu naataangoo yi xëy di xamal ne place de la nation fees del la defoon laataa ñuy amal li nga xam kon moom jongante législative yi Yewwi Askan Wi ak ñañu àndal ñoom wane nan li nga xam ne kon moom moo ab taxawaay waaye Yewwi Askan Wi ak ñañu àndal doon waa coalition wàllu yéenekaay bi moo xëy di xam ne ab ndaje bu mag ndaje moo xam ne kon lépp ci ak dal lañu ko amal moom la ñu def foofee ca place de la nation yéenekaay bi di xam le ne la waral ndaje ma nag mooy lu jëm ci wàllu seen liste yi nga xam ne kon moom la ñu bëgg gàntal ngir mën a bokk ci jongante yi nga xam ne ñu ngi koy waajal fanweer ak benn fan ci weeruk juillet yi nga xam ne kon moom la ñu seenu yéenekaay bi xëy di xam le rek ne lu ñu ci man di nemmeeku lu jëm ci wàllu kër lenn ci matuwaay yoo xam ne kon code électoral bi moo ko fësal loolu nag ginnaaw ñàkk sàmmante goo xam ne kon dañoo gis ne kilifay nguur gi sàmmante wuñu ak moom moo waral nag ñu génn ngir wane seen doole yeewi askan wi yéen kaay bi xëy di xam la rek ne luñ ci mën di nemmeeku eh, ci aw naqar dëggantaan la fësal li nga xam ne kon moom moo di ñàkk bokk goo xam ne kon moom loolu bëgg rek lii di li ab listam su naataango yi ba tey di bés bi ña nga ca wàllu nga xam ne kon moom lañ doon amal démb ca place de la nation xëy di xam lene amee ndaje mu màgg a mag forte mobilisation à la place de la nation noonu la ko waxee yéen kaay bi xëy di xam le ne bokk na ca càkkuteef yi nga xam ne kon kilifa yi fësal ko fa nag mooy na mu gën a di xam la rek ne luñ ci mën di nemmeeku mboolem liste Yewwi Askan Wi moom buñ ci gàntal benn ci bokk na càkkuteef yi nga xam ne kon yi nekk ci Yewwi Askan Wi doon nañu ko ci am sunu naataangoo yi ba tey ña xëy di xam la rek ne jamono ji ku jëkk politique yi ñoom wane nan ni ki doole ni ki démb nag ca place de l'obélisque yéen kaay bi di Walfadjri xëy nag di xam le ne doole dëggantaan kay lanu wane ci diggante coalition yi nga xam ne kon yeewi askan wi ak waa wàllu ñoom nag gagné nañ pari de la mobilisation maanaam nanu woote woon mboolama wuy si nañ leen ko yéen kaay bi xëy di xam rek ne ay dogu militant yoo xam kon yu dogu lañ Pastef woon lool ñoom ñoo wuy si woon kenn ku ci ne fësal li nga xam ne kon moom mooy bi xëy di xam le ne euh, moo xëy di xam le rek ne Ousmane Sonko nee na jamono ji kay fi toll ni mbir mi ba fi mu toll nii nag tàngoor des na fi le quotidien yéen kaay ma nga méga meeting bi nga xam ne kon ku jëkk politique yi def nañu ko ni démb ca place de la nation yéeni kaay bi di xam le ne ñi di waaye yeewu askan wi kay aw sawara dëggantaan lañu ubbi ci kaw président Macky ne de la nation ni kenn ku ci nekk dikk wuy si waa ku jëkk politique yi xam ne kon lañu bëgg mooy liste nationale bu yeewu wi nga xam ne kon dañu ko bëgg gàntal nañu ko bàyyi mu bokk si jongante yi nga xam ne ñu ngi ko war a amal fanweer ak benn fan xam ne kon ñu ngi koy séentu yéeni bi ba tey di xam le ne kay discours yi nga xam ne kon moom lañ fa doon nemmeeku niki démb ñi nga ne kon ñoo nekk ku jéeg politique gi may ñu benn yoon ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ci nguur gi jàmm ndax lu ne yàq na leen ko yéenekaay bi xëy di xam la rek ne jamono ji lu jëm ci wàllu woowule taxawaay bi nga xam ne kon moom lañ ca nemmeeku doon na taxawaay boo xam ne kon bu dara naqarlu waaye tam li nga xam ne kon moom moo di nekk bi nga xam ne kon moom la ñu gis ne nag seen liste bi dañu ko bëgg a gàntal ñoom nag waa kujje politique yi ne fi mu toll ni fësal nañ lii di seen ay ñuggi-ñuggi xool te nag lañu bëgg mooy seen list bi moom moom nanu ko bàyyi mu bokk si jongante yi lu ne mooy rek day jongante moom du maanaam am biir réew mi yéen kaay bi xëy di benn bennal di xam ne mboolem leader yi nekk ci yeewi askan wi kenn ku ci jël kàddu rek mayoo dara président Macky Sall xaram nga xas waaye tam ŋàññi li nga xam ne kon moom moo di aw doxalinam source ay yéen kaay ma nga ca xëy di xamal ne ci taarix li nga xam ne kon waa place de l'Obélisque def nañu ko fa nit dem ñi di ko jëpp politique gi loolu nag jafe na ñu gis ko fi yéen bi xëy di xam ne yeewi moom moomu mbedd mi ndax nag wane na ko dem daanaka mbooloo mu takko takku ñoo xam ne ko génn nañu ca laas yéen ngaay laas yéen kaay ma nga ca dellu soit ci mobilisation bi nga xam ne kon nee a bëgg a a na lool ci li nga xam ne kon moom mooy jëm ci wàllu mission d'entreprise publique bi nga xam ne kon ñoom nag RTS ñi ngi koy def yéen kaay bi xëy di leen tàgg ka kañ su naataango xëy di xam la rek ne président Macky Sall moom nag ci jamono ji nga xam ne kon mi ngi doon tagg ak kañ ki nga xam ne kon moom directeur général bu RTS jamono jooju nag fekk na ci ñenn ci ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ay agent ñoom nag am nañ ci ay ñugu-ñugu xool ak yu ñu ngi ko dund yéenekaay bi xëy di xam rek na luñ ci mën di nemmeeku jamono ji ñi nga xam ne kon ñoo fi nekkal nguur gi di ay yéenekaay mooy RTS Soleil ak agence de presse sénégalaise yéenekaay bi xëy di xam lene ba ci TDS sax ñoom ña kenn ku ci ne njiitu réew mi ma ngi lay kañ ak naw ci li nga xam ne kon moom moo di sa app taxawaay Dakar ak actu point moom mag ñuy waxal ab mbir moo xam ne kon am na ci marché Ocass bu Touba yéenekaay bi xëy di xam ne ne ab braquage la boo xam ne kon ab 4 x moo fa jaar yéenekaay bi xëy di xam ne rek ne luñ ci mën di nemmeeku li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu woowu léegi am na si ñenn ñoo xam ne kon daanaka naka boo sàggantul li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu ko GPS bi kon moo nekk ba ñu sàccoon daanaka loolee mooy li nga xam ne kon moo leen feeñal sunu naataangooy Dakar actu point com ñoo xëy naka di li nga xam ne kon moo xewoon foofee ca marché Ocass igfm point sn ñoom nag ña nga ca taxawaay bi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu que lii nga xam ne kon moom moo di taxawaay bu nemmeeku nanu ko ca yéenekaay bi ba tey di igfm point sn ma nga dellusiwaat ci wàllu ndaje mi nga xam ne kon coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa Yewwi kenn ku ci yaa ngi ci wan sa doole yéenekaay bi xëy di xam le ne waa Benno diggee woon nanu àpp ndaje waaye nag kenn mujj leen a gis Yewwi Askan Wi moom wane nañ seen bopp bu baax a baax eMédia point sn ba tey ma nga ca wàllu que ndaje mi nga xam ne kon ñii di coalition bi bi doon nañu ko amal niki démb yéenekaay yu bari ba tey daanaka kenn ku ci ne ak la nga xam ne kon yaa ngi ko cay nemmeeku di ko ca nettali Dakaractu point com moom fësal nataal yu bëree bari yoo xam ne kon mu ngi jëm ci wàllu ndaje mi nga xam ne kon doon nanu ko ci amal di wax rek ne ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa coalition Yewwi Askan Wi war nañ dëggantaan seen doole niki ba ci gu dem mbokk yi yéenekaay yangu dig daje lëkk inchaallah li gën a fës ci yéenekaay kaay Papa Saer Mbaye